du lu yomb euh, liggéey bi kese rek maanaam yombul sakkantuma nag soo liggéey ba pare war ko présenter dajale nit ñi ñu ñëw loolu nag euh, dañ ciy sant suñu boroom mais di ci sant ñi nga xam ne ñoom lañ àndal mais di ci sant également militants yi ak militantes PDS yëpp ak sympathisants yi ak ñi nga xam ne dañuy soog a dugg ci PDS parce que bari nañu ñu ñu bari ñoo xam ne dugal nañ leen dugg nañ ci PDS ci temps yi ci maanaam carte yi ñu doon jaay. Euh, xam ngeen ne dañu nekk ci benn euh, activité boo xam ne suñu frère candidat Karim Meïssa Wade ci ndigalu suñu mentor maître Ablaye Wade secrétaire général national du PDS moom moo ko digle pour maanaam ñu jaay ay carte defaraat maanaam parti bi ah, loolu nag su ngeen gisee mu am fii ci Thiès ni mu amee fii ci Thiès Ouest noonu la amee ci Sénégal yëpp fu ngeen dem lu mel noonu ngeen di fa fekk maanaam ñi nga xam ne dañoo taxaw pour euh, jaay carte yi ak defaat defaraat maanaam parti bi ah loolu nag PDS daanaka moom rek moo ko ñemee ndax euh, renouvellement ak restructuration lu doy waar la parce que da nga fiy fekk ñoo xam ne dañ fi yàgg am ay tur ah ñooñu nag. xëy na duñ bëgg a dem waaye amuñu ay nit waaye am nañu ay tur ñu nëbb nag ñi nga xam ne maanaam am nañ ay nit mais amuñu tur moo tendance boobu nag lañ bëgg a renverser loolu mooy objectif maanaam renouvellement pour ñi nga xam ne maanaam dañuy liggéey liggéey bu mucc ayib te kenn xamu leen ñu xam ne désormais xam ne ñii ñooy doxal parti bi parti bi su amatee soxla wala su am lu muy def mu jaaree ko directement ci ñoom loolu nag moo ñëw fii tey Thiès. ah ñu liggéey nag liggéey bu mucc ayib ba monté fi juróom-ñetti sec juróom-ñetti secteur ah dama ragal ne sax mënoon na ko parce que am na ñu indaale seen i secteur tuuti moo ci manqué kon damay ñaan ñi nga xam ne damay profité seen tribune ñaan ñi nga xam ne mooy la commission nationale euh, bu vente des cartes man mi sax ci laa bokk damay ñaan ñu yokkaat maanaam une semaine à trois euh, deux semaines à trois semaine de dérogation au ñu te ñu arrêté ko rek ci 31 janvier bi parce que ñi bëgg dugg ci parti bi bari na ñi bëgg jaay bari na ñi bëgg a responsable ñi bëgg am secteur bari na suñ ko limité ci 31 janvier bi dina am ñu bari ñuy sacrifier parce que am na xam ne vraiment taxaw nañ thème pour defar ay secteur donc su fekkee ne am nañ tuuti dérogation je crois que lii nga xam ne moom lañ fi def tey muy juróom-ñetti secteurs yi ñu monté mën nañoo monté waat li nga xamante ni nii mat na ko ñaar wala mat na ko ñett. parce que PDS moom li ñuy wax rek dafa maanaam li ñuy wax naan xalu ndeef la dafay gëmm rek mais du fay euh, PDS wax naa ko toujours ci plateau yu bari nous avons une majorité silencieuse am na ñoo xam ni kil pleuve ou qu'il neige ñi ngi tey seen carte mënoo fexe ba mu mooy euh, keesu pedes loolu nag su fekkente ne bokk na ci ñi nga xam ne ci suñu làng gëlee ci waa Mburoog Sow ñu bari dañoo mer léegi daanaka ñoom ñëpp fii lañ jëm si parce que lañ naan ku xamatul fa nga ku xamatul foo jëm mais dellu si rek fa nga jëmee fa nga fa nga jóge woon jàmm na ñoon loolu xam nga yéen ajoor yi xam ngeen ni ñu koy waxee ak ak bawal bawal yi dañ ne soo xamatul fa nga jëm dellul fa nga jóge woon opération de retour boobu nag moom la ñuy ñëw ñenn ñi di abusé wu te wax naan maanaam retour waay libéral la ak naa di ci baatal ñeneen nit ñi mais PDS fa mu nekkoon ba léegi ma nga fa dara changé wu contraire day gën di yokk parce que wax naa leen ne PDS amuñu ay militants ki ko gëm dëgg dëgg dëgg ay Baye Fall la am mais amul ay militants. waaw jërëjëf kooku nag comme li ma ko waxee léegi nii ci tubaab dama ne man ci lu ma xam rek lay wax man je suis un militant discipliné euh, de toute façon li ñuy souhaité mooy mu ñibbisi xam nañ ne itam ñun mooy suñu candidat euh, comme niñ ko waxee woon mooy mooy suñu candidat ba a amul Z amul amul A ba amul alternative donc c'est notre candidat amuñu beneen candidat kon nag ñi ngi koy séntu de tout façon di am yaakaar bu baax ci dina ñëw su ñëwee dinañ ko fal fal bu rafet te su ma doon conseiller ki nga xam ne mooy njiitu réew mi tey dama ko naan Karim a gën ci yow de Karim moo gën ci yow moo gën ci réew mi moom su ma ko doon conseiller loolu laa koy wax maanaam mooy tey moom mu bañ a participer proposer Karim Wade candidature. non du proposer par du proposer candidature parce que Karim ci parti démocratique Sénégal la bokk. Macky Sall la bokk ci APR bokkuñu parti. Ah, lu mu gën ci moom la li mu gën ci moom mooy. Euh, Karim d' abord est la providence. maanaam su fekkente ne lu jëm ci koom-koom la bu jëm ci réew mi lu jëm ci maanaam ndax ni ñu ko mën a nattee baromètre bi mooy Karim am na xam-xam am na Euh, maanaam am na li nga xamante ne nii mooy carnet d'adresse bu am solo beneen bi aussi fi nga xam ni fa la ñëpp jëm mooy la coopération sud sud moom la mettre en exergue muy euh, arab yi muy naar yi dama leen dox benn secret boo xam ne ci ci télé laay wax le fonds Qatar yi suñ jëlebee su génnee loxoom Europe jëlal naa banque yu ndaw yi mais banque centrale yi sax benn dootu ci fay ñoom ñëpp dañuy dem banqueroute le fonds Qatar yi donc fonds boobu moo téye daanaka adduna bi wërngal kap mais kan moom moom fonds bi c'est le Qatar ban relation la Karim am ak le Qatar foofu la ñuy jàngate donc loolu rek déjà benn maan la boo xam ne su fekkoon ne Sénégalais yi gëm nañ ko exploité ko maanaam Sénégal mën na fa jaare dem non mais xam nga loolu loolu ñun amnistie bi nga xam ne moom la su fekk loolu moom la engagé parce que amnistie soo koy wax danga koy wax ku tooñ mais ku tooñul en général du balu foofu la affaire bi nekk ñeen ñëpp xam ngeen ni CREI du maanaam juridiction boo xam ne bu valable la koo xam ne dañ naan la kay joxe sa preuve suñ la condamné amoo appel loolu xam nga ne maanaam loolu boobu justice kenn xamul ban façon la donc su fekkee ne loolu lépp ñoom xam nañ ko ñu dem partout dans le monde fu ñu dem ñu débouté leen fu ñu kalaamee Karim def rogatoire partout dans le monde ñoom actuellement ñoom ñoo am problème mais Karim ak le PDS amuñu problème ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo waxoon ba sénégalais yi gëm li ñu wax tey sénégalais yi weddi leen parce que xamoon nañ li ñu wax lépp amu ci dara loo xam ne dëgg la lépp naax na saay léegi nag ils ont des problèmes maintenant pour maanaam dellu soit Karim mais loolu ñoom ñoo am problème mais ñun amuñu problème boobu ñoom ñi ko génne woon nag génne boo xam ne vraiment ñun ñëpp gis nañ ko 4 heures du matin lañ ko defal passeport génne ko ci voiture banalisée yóbbu ko tarmak aéroport mu dem directement jaaru sax jaaru sax salle d'honneur wala mu jaar ci maanaam fi ngay defee sa sa sa kii sa sa formalité pour pour sooy sooy sooy sooy sooy tukki directement jet privé di ko fa mu jël ko yóbbu ko mais loolu xam nga ne su fekkoon ne c'est dans le règles de l'art kon du demee noonu. non loolu man yaakaaruma ko quoi de toute façon man tam su wax damay wax fi nga xam ne foofu laa yem sama station fi mu yem quoi donc man nekkuma ci kaw mais man daal li may wax toujours parce que je le dis même parfois dans les panels dama leen soyons des militants disciplinés benn ayons confiance à ceux qui coachent ceux qui en train de coacher le le le le, le dossier de Karim muy les les les les avocats les facilitateurs. ak maître Abdoulaye Wade bi nga xam ne moom moo nekk au cœur du dossier. non vraiment ay waxam du ma ko mënuma ci wax benn comme ni ma ko waxee léegi sama jarbaat la sama frair ex frère de parti la bon fii kër gi ngeen nekk tey miin na ko trop ñoo fi àndoon di liggéey bi mu demee ba nga xam ne ay conviction ak li mu gëm moom permettre na ko moom mu dem dafa dem nous lui souhaitons toujours bon vent mais nag li rafet mooy nit ki toujours la nga xool sa démb ak la nga seqoon ak nit ki ak lu mu lu mu doy waar doy waar ak lu mu metti metti sooy wax war nga rafetal sa kàddu ndax am na wax yoo xam ne soo ko dee wax sax généralement dañ lay jëppi ñi lay déglu ñoom ñoo lay jëppi léegi nag moom comme nu sommes en démocratie ku nekk ak ni ngay doxee moo ñun dañ koy nungul noonu nga xam ne système boobu muy doxee la waaye ñun daal fi ñu nekkoon nga xam ne fi la ñu bàyyi woon ñu ngi fi tey lañ fa gën a ancré wu nous sommes des wadistes éternels nous continuerons de l'être te itam loolu dara mënu ko ne su fekkoonte ne daal comme ni ma la euh, toujours ma wax la ko Babacar maanaam caabi ji ki yor caabi PDS fii Thiès soo ko dee war ñëwal ci man su ñëpp demoon man maay tëj. waaw affaire bon Mimi comme ni ñu ko waxee Mimi Touré moom PDS yëpp xam nañ ne du suñu xarit ndax lépp lu ñu dal daanak ginnaaw yàlla moom moo ñu ko teg. mbaa bokk waaw d'accord mais daf tombé nag mooy waral ay gaaf xam nga moom boobu temps bi ñuy am problème boobu moo nekkoon ministre de la accéléra Canas ku ne dégg na ko te daanaka moom bi mu koy def Karim rek moo ko taxoon a jóg tey nag la waaye ren di nii sa loxo lay nàcc elle a eu le retour du bâton léegi nag na ko assumer ñun nag le parti démocratique sénégalais parti la boo xam ne amul dara luñ ko nit di waxal ñun kenn duñu jëlee benn décision te décision bu mu jël c'est bien pensé au niveau de la direction du parti ñun nous loolu faisons entière confiance moo tax ñu ànd ceeg ñoom li def parce que lu ñu def rek. ñun ànd nañ ci ak ñoom. ñun xaaruñ ci dara nag pour ñun sax dañ ko jàpp comme du événement c'est un non événement bon comme ni ma ko waxee léegi man damay dem sax Tamba far euh, comme li commissaire doon def fii moom laa fay defi fii ça veut dire que man du ma fa kon nag je pense que ne il le droit de dale partout au Sénégal c'est le président de la République mais tàmm nañ nag maanaam euh, yu mel noonu ci moom ay tournée économique wala ay conseil présidentiel conseil des ministres déplacé yooyu yëpp xam nañ ko ci moom mais nag de toute façon euh, li ñu koy avertire daal mooy troisième mandat moom bu mu ko xalaat parce que troisième mandat bi kenn àndu si ak moom. moom romb na xalaat kay. ku ko wax loolu. Ah, waaw mais xam nga loolu loolu par exemple yow kañ soo soo soo soo soo leen neexee sax ñu ne ñoom ñooy yàlla kooku moom amul benn problème ku toog di gént kañ. loolu neex mën nga ko wax mais de toute façon peuple bi ñu ngi koy xaar su fekkente ne par exemple moom man na jaxase constitution bi dégg nga fourre les pieds article vingt sept bi def la ko neex su boobaa maanaam conséquence bu ci am euh, moom moo koy. moo koy assumer moo koy gàddu. li ñu mayoon président Abdoulaye Wade en 2012 du ñu ko may bon xam nga loolu contexte yi peut-être bokkuñu. contexte yi bokkuñu comme ni ma koy waxee toujours. Euh, maître Ablaye Wade moom constitution bi def ko mayoon mu mu mu mu mu mu briguer mu bokk briguer maanaam troisième manda léegi nag ñi nga xam ne ñoo contrôle diaboliser ko alors léegi ils ont commis partout des avocats et partout des juristes au niveau mondial pour ñu ñëw maanaam théoriser maanaam ce contre ce troisième mandat mais bokkul ak bi bii moom moo taxaw yéen yéen a ngi gis réseaux sociaux yi fu ne la taxaw ne du ma def troisième mandat fu ne la taxaw à chaque fois que l'occasion de présente ci médias yi au niveau national et au niveau international fu ne la taxaw mu ne moom il fera jamais le troisième benn bi sax dañ ne 2019 bii mooy sama dernier mandat su ngeen ma falee jeexal naa ci damay jël sama gaz ma dem parce que il faut il est temps il faut toujours avoir euh, euh, n'est-ce pas l'audace de partir à temps loolu wax na ko dañ koy jël au mot di xaar parce que jusqu'à présent kenn déggugul loolu aussi ngeen ngeen bàyyi ko xel kenn déggugul mu wax ne maanaam dina def troisième mandat walla def troisième mandat léegi nag on attend ah mais ñi koy waxal ñooñu nekk ñooñu man la dem ba Danfaxa di commissaire politique fii si Thiès nord ouest ak est sama liggéey nag mooy saytu secteurs yi nga xam ne responsable yi ñoo ko taxawal fii ci différentes sections yi amaana ñoom ñii toog sama wet sax ay commissaire lañ ñun dañoo tàbb comme commissaire waaye avant tout ay militants du PDS lañ suñu rôle nag du rôlu patron du rôlu koo xam ne day jël yat bi di dóore déedéet nous sommes les ambassadeurs de ab Abdoulaye Wade et de Karim Meïssa Wade ñun ñooy représenté PDS ci gox yi ak goxaat yi ci département yi ak ci région yi suñu liggéey nag liggéeyu facilitateur la man mii li may def nii mon frère moor Diouf commissaire la mun na moom lay def ba ci Tamba moom frère également Ndiaga Diaw moom lay def te am na fi yeneen commissaire yoo xam ne gisuma leen mais ñun ñëpp même liggéey lañ yore donc toujours may wax ne rôle commissaire mooy jàppale responsable yi ci seen liggéey di defar seen secteur seen gox secteurs yi nag dañ ne képp koo xam ne responsable boo xam ne motale na cinquante personnes mooy juróom fukk personnes am nga secteur donc di nga doon responsable léegi day wund ni kuy politique amoo base jaru ngay politique <laughs> politique mooy da ngay dem sa gox am sa base am say secteur su boobaa fu ñu tàllalee sa loxo itam mu nga tàllal sa loxo si liggéey bi nag defe naa samay kàddu du bëri ndax pratiquement ñu fi ñu ma ma jiitu wax nañ lépp vérifié naa lépp lépp yemb na lépp mot na kon boog tey fii si Thiès ouest mun naa ne valide naa lu mot huit secteurs yoo xam ne jox nañ ma ko kon boog maa ngi remercier di encourager responsable yu fi nekk yëpp muy président wala présidente de secteur ne gis nañ seen liggéey naa ko jëbbale Karim Meïssa Wade incha allah wane que seen liggéey man na rafet na jekk na wasalaam